ñi ngi ñaan yàlla yàlla mbaam yàlla rek la ñu yaakaar ñi ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may mbaam ga ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na yàggal fa suñu xalifa yi ñi ngi ñaan yàlla euh, ki nga xam ne euh, yàlla jox nañu tamit président bu bees muy euh, muy Bassirou Diomaye du Diomaye Diomaye ñu ngi koy ñaanal fay ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla li nga xam ne moom loo ko Sénégal yi dénk yal ko yàlla dëgëral de moom ak képp koo xam ne mi ngi ànd ak moom de ñi ngi ndokkeel aalamul islam yëpp ñi ngi ndokkeel jullit ñëpp di ñaan yàlla tamit sëriñ bi yal na ko yàlla dëlee siwaat ci jàmm yal yàlla dëlee siwaat ci jàmm te yàlla wattu ko moom ak ñam nekkat ñoom ñëpp yal na leen yàlla wattu de yal na yàlla dimbale dimbale jullit ñi ah ña nekk Palestine ñi ngi ci ay xat-xat waaye ñi ngi ñaan yàlla ci barke bés bii nii ak ci barke mbooloo mu fi nekk ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla xeetali leen yàlla rek moo leen mën a xeetali yal na leen yàlla xeetali yal nañu yàlla def ñuy ay jullit yal nañu yàlla def ñuy ay jullit yal nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla lépp luñ dundale ci weeru koor wi yàlla gis na ko yëg na ko yal nañu ko yàlla yal nañu ko yàlla fulal yal ñu ko yàlla nangul de ci barke yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñi ngi gërëm waa jàkk ji yëpp ñi ngi gërëm góor ñi ñi ngi gërëm jigéen ñi ñi ngi gërëm waa koñ bi yëpp di ñaan yàlla ñi leen baalu xaq ci turu sëriñ bi di ñaan yàlla ñëpp yal nañu yàlla boole jéggal yal nañu yàlla boole jéggal de ñi ngi gërëm ñi ngi sant ñi ngi ñaanal timin euh, euh, ki nga xam ne xariti sëriñ bi la muy Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it ñi nga xam ne moo yàlla boole na ko ki nga xam ne mooy président bi muy Diomaye ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dimbale bañ mën a yóbbu Sénégal fa nga xam ne foofu lañ ko bëggee de ñu ngi koy wax ci turu sëriñ bi muy Cheikh Omar mi nga xam ne yàgg naa taxaw fii di ko ñaanal yàlla ñu ngi ñaan ne ñaan yàlla nangu na ko yàlla nañu yàlla di boole dimbale ñu ñëpp te kenn ku ci nekk ci réew mi yàlla na ci yàlla na ci gis boppam de loolu yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ñi ngi gërëm suñu xalifa yi cheikh mahamadul maahi cheikh ma mahamadul maahi xaadimul umma ñu ngi gërëm timin di di ziara ñoom ñi leen ziara ci bés bii nii di leen di gërëm di ñaan yàlla yàlla yàggal leen fi ak imam bi mi cheikh ahmed tidiane cissé ak ak rakkam lettre rasmi muy imam Cheikh Ali Cheikh Cheikh Mahi Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ak mboolem set ak mboolem jullit ñi ñi ngi ndokkeel xalifa yi fi nekk xulafaa yi fi nekk yëpp muy Cheikh Mountakha ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fi yàggal leen suñu kanam de ak suñu Babacar si ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ak jullit ñi fi ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi emal suñu kàddu foofu allahuma salli ala sayidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيجي نوسم بوكو باب صلى ومير جلوسنا يلا يلا فانت مو اقبل السلام عليكم ورحمه الله برهام باء وراء الف ثم ها